Ibrahima mooy waa ji jël kàddu te moo ko sàkku ci moom ñëpp teewlu ko mu ni bala moo jël kàddu sëñ Xaadim Géey fukki bayit rek lu gàtt gàtt ndax jataay bi yàgg na te kilifa yi dañoo bëgg a dem bu defee nag loolu rek mu doon ak ubbikum addi ma asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu saddi lisaani nawir janaani saafi amaani wasit baraay safsata dayra li xutta mayra takku jawar li ma juraay an xis iyaali min dalaali wa bil halaali xalli siraay xini hitaabu xulli kitaabu wa xulli wataabu yaa siraay yaa xayr rabbi mu rabbi taayib taxat bi baata di jaay salim salim alal mu tamit bokkul ñaas mbil jaay jërë ngeen jëf noo ngi sant sëñ Tuubaa di ko gërëm di ko delloo dénk suñu jébbal lépp di sant mboolem njabootu sëñ Tuubaa gi tàmbalee ko ci sëñ Muntaxaa ak sëñ Amsa mi moom bis bi ak magam yéeg rakkam yéeg ñi mbokkal sëñ Tuubaa ñëpp lan nu faarax bay na ahadin min daal lan nekk ci aman rasul sant nañ leen gërëm leen ci seeni taxawaay bis biit sant nañ la ci ndax taxawal nga ci sa maam taxawaay bu rëy loolu yi sëñ maam sun Ibrahima ñaanal ne rabbana ablana min aswaajina wa suriyatina xurata ayun wajalna li muttaqina imaaman nga xam ne daa naa ak njabootam ak i sëtam doon ñu baax te daa bëggul sax ñu bokk ci yaafu si na imaaman muttaqina yi la bëgg ñu doon wajalna li muttaqina imaaman la waxoon sëñ mag bi ne wa ablana suriyatan tudiimu alhamala saaliya xadimu suriyatan tayyibatan tujaddidu na janabil mustafa tajtahid sët yu baax yu yu aw ci yoon ba noppi di leeralaat yu yoonu ngirum bi xam nga kookee mag moom yoon ci alxuraan nga xam ne dañ naan daa fa asaabool kibaru daa dem bay mag yàlla wërsëgale ko suryetal du afaaw nga xam ne teenam yam amoon ak dër yaag tool yaag lépp daa mujj tàkk yéen ñii bokk leen ci loolee njabootu sëñ Tuubaa gi nii ngeen taxaw ci yoon wi ni ngeen di defaral sëñ bi yoon wi xam ne ne sët yéen doon tànn ngeen amal te jamono yi sëñ baa nekkee waxan naa ko dama ko ne loolu yi sëñ bi waxan de waa danaa suryetal tuddima alhamala yéen a ngi ci ndax wam lam ne woon wala sa yoo jigu siwaadul sawaadul jismi safaatul fatahu suwal fami isru ba maa uri fata muwaqara maa xaaba aman xablo waasura fartalu xad yabdu amamat wa bi tal yonte bi ne falaata naasa ina nasmi tasdari naasa addisi ummati kalmatari lu jëkk laa nga ca ca lay baax wala ci lu li ndax daa wax ne fatalu xat yëpp du amaamal wob li waaye wal fadli li waa bi la tàlli ngëneel ab nawet daal mujj gu baax a cay baax nit it mujj gu baax a koy defal wala xaqibatu nag lil muttaqina nan jéem a sax ci jub sax ci taalibe bi alaji baara ba loolu laa ko wax dama ko ne mag ñi jëkk ñi ku leen newoon bu doomi sëñ Tuubaa yi jeexee yoon wi du yàqu duñ ko gëm te loolu yi sëñ bi ne fa lay sëñu jub sawaatul ji safaatul fatawa suwal fami ma ne ko fii ne mënees na ko gëmee ci yow mii ak Barack Obama ndax maison balance bañ koy liggéey teenwaar taxut la te kon nag du Barack Obama baara la ak Obama mu ne ma sàddaxta waaw waaw waaw loolee nag ba tey mooy dox ci yoonu sëñ Tuubaa yi sëñ am sa mii dama ko ne am satu mañ mañ leen tudd de mii ñu la tudde ñu tudde ko ko de lam dajan ca Badara xare ba lu mu fa def ci jeesee ki xeej defal nga sëñ Tuubaa ci xasaay du nuy toll boo légee du lëpp ndam bu damoo lee nga damoo li waa te te sëñ bi dane xasiidati faaxat xasaayidal kiraam wala taquuda abadan xayral maraam waxtu wu ne mi ngi ko yut li gën ci yi ñuy sàkku te nee na waxtu jànge mbaam bi ne isaa katabtu aw jaa ilaya maa waxtu jànge mbaa mu bind mbaa mu yor téere donc lu jóge ci yàlla lu rëy dikk ci moom lu ko gën a dëgëral yaakaar xam nga kon wala toxayib rajaa yi jee dañ na fee moom ku wér la diggam ak yàlla nan wér suñ digg ak sëñ bi dooni taalibe nangul ko bañ a doon taalibe yi di nga seeni sëriñ ak di leen wër aka liñ kaar aka seet bis bu taalibe di seet sëriñam ba xam jub naam déddaa kuy seet taalibe bu dëggal boobee bis mooy contrôle doo ko ci fekk sun yoon nekkul ci suñ doxini sëriñ yi nan seet nin war a def waaye bëgg a dëkk ci dëkk ci rasaayaay ba noppi jot ci masaayaay mënut a nekk fokk lu man sàmm ani rasaayaay li fooy na yeftor bil bil falaay li dëkk ci masa rasaayaay jot ci masaayaay mëneesu ko sëñ bi mën na nangam àttan na ko fii mu ne kilo dem àll diisu kenn waaye kenn du ko yen koo wekk nan fexe bay seetal derb sëñ Tuubaa bi di seetal suñu jëmm yi di wax lu nu war a wax di def lu war a def sax ci taalibe ak akub jub yonte yàlla Muusaa kàllaama lay loon day dem bay wax ak yàlla nga xam ne Jibril mosu ko ne yàlla nee na moo daan wax yàlla direct te làqat ci na sax ba dugalaat kenn soppi ko yonent muy aaroon na rakkam te dem na ba ba ko suñ borom di boole xular jàngalu ko yonent ak taalibe la ko doon wutloo ak taalibe nag moom la fi Sëriñ Tuubaa indi moom la fi Seex nekke woon Seex Ibra dane ab ab doo ko jox danga koy jox te di ko laaj te bu ko jox bu ko laaj ñu ne ko loolu nuñ koy def mu ne ko da nga koy jox sa alal di ko laaj ndigal te bu ko jox bu ko jox bu ko jox ndigal bu ko laaj alal te Muusaa bañ koy euh, sare ak aqiqa foofu nga koy xam ne ndax aqiqa mooy fasalu ahlu sikri in kuntum laa taalamuun mooy sariya ak xaq moo ni falaa tasal ni an sayin ata di su lekk minu sikra bu ma laaj dara te lu ma la wax nang ci wi nan jàpp lool suñu digg sëñ Tuubaa jërë ngeen jëf Muntaxa sëñ Muntaxa daje woon nañ fii ci yi muy doxaluk taalibeem nangu nangu ndigal ba muy jox addiyee sëñ Baara daa laxasaay woon daaw ba ñuy bëgg a màggal nag sëñ bi ne bu safar teroo na dem ca penku su jumaa ja ngeen fekk ko ñi jàng fay xasaayit fanaan fa ba suba laa leen ni ni nguur di def de sëñ bii da xawma seen biir waaye daa mel ne passation de service lañ doon def te loolu li ma doon wax yàlla def na passation de service sëñ Muntaxa da ko doon joxaat sëñ sëñ da ko doon jox sëñ Muntaxa yoonu yoonu sëñ Touba waxtu wu ne dana seet ku ko mën a yor mu teg ko ci say loxo dama leen ne nun taalib yi neen dëggal dëggal doo ngay leen dese mooy mooy leen war itam te li sëñ bi santaane def ko Cheikh Ibra dane woon ab taalibe bu sëñ Bàmba meree nan naaj bu soxlaa nu ñàkk mooy dëgg joxe sunu ñaq am ñaq dee su ko moom ci jëw jàmbur li sëñ bi santaan nañ ciy denc nañ ciy sax waaye denc lu bari ba noppi fab lu tuuti jox sëñ bi damaa daje woon ak waa joo xam ne day wër jumaa ne dañ koo tafu 2 millions ma ne ko loo loo teg ci barab bi mu ne ma ñaari téeméer ma ko ñaari téeméer booy suñ booy dugal fii suñ tubaa ñaari millions yokku na ko jox loo ko fa yóbbu nan sax ci taali bi sax ci jub toj suñ xol yi nangoo jox suñ tubaa addi yi Cheikh Ibra day doon alal yi sëñ Tuubaa laaj soxla wu ci dara waaye fu alali nit nekk ab xolam ne fi te xol yi la soxla xol yi la soxla ilaa man ataala bi xalbin salim ak xol xalbun mutmainatu yooyu yi la sëñ bi la sëñ bi soxla daa bëgg a defar xol yi moo tax mu di leen laaj alal yi ndax fii ne dëkk boo dégg na lakk na banque ba sa alal ne moom da nga laaj ba xam egg na fa am dé na sëñ Tuubaa di suñ banque jërëgéen jëf